na ngeen déglu na ngeen déglu na ngeen déglu ma delloo te fent ab daaj fent ab daaj ba saayir sa di baatin jullee gënuk maaj gënuk maaj damay wëlbati mbooleem mooy soodaan damay wëlbati mbooleem mooy soodaan di baatin bu jar di seetaan dama rabbi ko seetaan ma koy reej ku jiital li ma jiital li ma jiital yow lu la neex laaj laaj ma seet mbir ma mu jiital turul ay ngaañ ma faf jóg ni ko tuubal malaaka day gaañ te ndek te ndek te ndek ki ma àndal ñu dem ba tuube Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba Serigne Mame Cheikh Serigne Saliou Mame Cheikh Mourtala defal nañu màggal Serigne Cheikh Ibrahima Fall Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba te ma àndal ñu dem ba Touba dem ba Touba far jébulu far jébulu moo gën torosu booba defal ànd mi defal ànd mi yàlla ak Serigne Touba ak Serigne Touba te yónneen di sa wama yónneen di sa wama jublu Touba ila baarikum ya una kunu ma seexin النيب محياه كبدر نيلن كتافار هو جوروس جوروس ممي كتمار شيخ بابا شيخ بابا كسدان غيرام كسدان غيرام بايم سيرين سالي شيخ بابا شيخ بابا شيخ بابا سيرين توبا مكه Baay Serigne Saliou Mbacké ko setal ngërëmam setal ngërëmam Cheikh Mourtala ko setal ngërëmam setal ngërëmam Cheikh Mourtala ko setal ngërëmam setal ngërëmam Cheikh Ibra Fall ko setal ngërëmam ngërëmam yow lu la neex saabu di ceebu nalaw puus paaj kile jar di ko way jar di ko way si am jar di ko way ay mbàkke mooy ta ah, ah, ah, aas dama yab ci saxaaram te laaju may paas sëriñ bee ka niroog Moustapha ba ci mool doxul wëggul se taxul ba dim ñool sa ayib te njëkkatay moo na mi njateg ma aar ta baatam dañuy collet ba tiimi la xiyaar si am réyul rëyul tuutiwul gàttul woon ba dem dooñ bu daaree du ko kekkal da daa soxoog mooñ woo bisana yaa u sënu lay la aw siraaju salaami la naara lay la Cheikh Bamba da daa mu óolu diirti kaan yu ñoor yaa nga ko daa féete day joor su muuraay ba ni melxet ba ni la aas ah, ah, ah, di saf laari wurus moo ko jekk ay faas Serigne Touba Mbakke su muuraay ba ni melxet Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba مكة سموراي بني ملخت بني ملخت سني بني لا أس بسبلا أري بروس أري بروس موكا جكا إفاس موكا جكا إفاس ليرو جرا مام ليرو جرا مام تخلى جري خيرا دنا جولي تباتين بساكي جنيا خار كرامام خار كرامام دي ديرو بغوبار نورك بكنام نورك بكنام urus naa aar Serigne Touba Mbakke gëtam yaa gën a lamsal du rukk du gestu borom kersa la woon Serigne Touba ah, ah, ah, daawul dox dereesu yow yaa di sam si sondaan alaaji fan baay meel yow yaa di sam si sondaan Cheikh Fall Mbakke yaa di sam si sondaan mbeetaan yow yaa di sab si soodaan ah, ah, ah, Cheikh Fallou Mbacké yàgg ngay daan bu nga lambi soodaan noo ngi lay siyaare bu nga lambi soodaan noo ngi lay siyaare Cheikh Rafal Cheikh Ibra Fall maam Cheikh Ibra Fall ana ñu bëgg Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall def li ni ñu màggal Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall am ngay dërëm am ngay am ngërëm am ngay ngërëm say dërëm fa ah, ah, ah, al ngërëm yam lo musa musa tabal këram ay junni daal nga daa joxe fa ay nga daa joxe Cheikh ay junni daal nga daa joxe Cheikh Ibra Fall jaarama Cheikh jaarama Cheikh Ibra jaaraama seex jaaraama jaaraama jaaraama maam seex Ibra Faal ku bëgg seex Ibra ne ñëpp jug taxaw ca kaw ñu màggal daa bay maam Seynabu Njaay ana ñu bëgg seex Ibra Faal def li ni ñu màggal seex Ibra Faal jaaraama jaaraama jaaraama maam Cheikh Ibra Faal am ngay dërëm am ngay dërëm Cheikh Ibra Faal am ngay ngërëm am ngay ngërëm say dërëm faal ci nay ngërëm yow loo musaam tabal këram tabal këram junni daal ay junni daal nga daa joxe